ngir fàttalante rekk niñ ko baaxoo defee loo xam ne njariñ lay doon ci askan wi lu ñu fas yéenee andi tey nag ak naqarlu lay doon ak it ak xamle ci musiba mu mag moo xam ne mi ngi raam jëm si ci sunu réew mi te ñi nga xam ne ñoo jiite yàgg cee dox ay jéego muy lu jëm ci wàllu ngóor jigéen kenn ku nekk dégg na fan yi coow li ci am ak wax ju bari ji nga xam ne am na ci li ñu ci yitteel rek mooy ñu xam ne teef la woo xam ne sun borom subhanahu wa taala aaye na ko ci alquran tudd ko ŋàññi ko nga xam ne tudde na leen ñu jalgati tudde leen ñoo xam ne ñu ëppal lañ nga xam ne ŋàññee na leen nu ne mu nekk mbir moo xam ne nag comme fii lañ nekk ci réew mi di Sénégal moom yàgg na cee dox ay jéego ndax xam ngeen ne jéego yi ci ëpp nga xam ne ndigal yi mi ngi bàyyi ko Nations kenn ku nekk xam na ne depuis 2006 ba léegi ñu ngi ci dox ay jéego ndax 2006 lañ ci tàmbalee dox ay jéego jàpp 2008 benn pétition boo xam ne ñu ngi ko déposé ci 2008 ci benn bànqaas boo xam ne ñu ngi koy tudde idaahu te ki ko jiite di sorsetin kuréel boobu nag bañ déposé loolu ca 2008 taxul ñu taxaw dañ cee dox ay jéego nga xam ne ku demee ni Pays-Bas Hollande ak France ñoo ci njëkk joxe seen kàddu joxe ci seeni xalaat ànd ca ak ñoom waaye biñ doxee ay at yu néew 2008 2009 2010 ba 2011 ci lañ def première révolution nga xam ne na soo ni dafa joxe ay ndigal yoo xam ne mbat na téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett yoo xam ne daf koo jox réew yi Sénégal bokk na ci ñim jox recommandation yooyu waaye yooyu nag yu bari la taxuñoo jóg li ñuy taxa jóg mooy li ñuy tudde ak ngóor jigéen bañ leen joxee ndigal yooyu nag Sénégal nangu na yenn ya ba def ko yenn ya mu ne ko mi ngi ciy dox dana ko doxal yi ci des mu ne mi ngi ci xalaat yi ci des mu ne d'accord yam waxoon ne d'accord ci nag ci la ngóor jigéen bokkoon ca jamono jooju di 2011 kon loolu la waxoon ne moom maanaam du ko def mooy pare maanaam du ko def daal andu andut ci góor jigéen ñu di ko daganal senegal loolu la waxoon ci année boobu muy waaye ca ca sa rek la Euh, kiy ñëw président bu Amérique bi mu ñëwee ànd ak mbooloo muy muy Obama la ko tax a jóge Amérique ba egsi Sénégal du ay caaxaan waaye li firndeel ne mbirum góor jigéen lu ko ñor la ci ñëwam googu bi mu ñëwee daf ko cee tudd ngir bëgg ñu daganal ko fi waaye président wax ko ne loolu pareeguñ maanaam pour le moment fii ñu toll daal pareeguñ ngir daganal góor jigéen fii ci Sénégal kon bu njëkk 2011 dafa waxoon ne du ko def ñu ñëw ba 2013 mu ne pareegut waaye pareegut googu teewut ñi ngi ci doon jox ay ñi ngi ci doon dox ay jéego ñi ngi ci doon dox ay jéego ba 2015 bu ma juumut lañ ko invité ci iTélé France France ñu laaj ko ndax ay góor jigéen am na Sénégal dafa wax ne ay góor jigéen am na Sénégal ndax am nañ droit yëkkati seen kàddu wala joxe seen xalaat wala yu demee noonu mu ne waaw journaliste bi laaj ko ndax buñ ko defee dara dana leen ca fekk mu ne ndax dana leen ca fekk wala déet daal du bàyyi ko ci état moom kon état moom pare na yaatal na góor jigéen ñi kon li ko jaaxal mooy askan wi ndax pare nañ ngir daganal góor jigéen wala déet kon nee na jigéen ñi am nañ droit manifesté wu am nañ droit wanewu am nañ droit lu leen neex te lu leen mën a dal du bàyyi ko ci état waaw buy bàyyi ko ci askan wi lay bàyyi ko waaye du waaye du bàyyi ko ci état loolu ñëpp seetaan nañ ko mu dem ba France ñu dalal ko ci itélém wax ko fa kon loolu bu amee ci 2015 ñu continuer 2016 mu indiwaat beneen document ISNEC document boo xam ne manees na ne daanaka dafay wane ne nit ki maanaam góor jigéen gi kenn du ko boddi nga xam ne dañ manis naa tuddee ne daganal nañ ko fi ndax daganal nañ ko fi mooy kum neex def ko te état du la tëj maanaam amul benn daan boo xam ne dana jóge ci moom dal ci sa kaw te mooy li ñu tudde lastrat l'astratisme national d'équité d'égalité de genre loolu bu fekkee ne xës nañ ko wax nag kon day mel ni problème bu rëy rëy am na ndax buñ dagalee ci buñ ko daganalee ci deux nga xam dañoo bëgg diggante 2016 ba 2018 maanaam ba 2026 maanaam 2000 li tàmbulee ci 2015 2016 ba 2026 ngóor jigéen moom day dagan fépp foo xam ne na soo bëgg na mu dagan fa maanaam dañ leen dañ koy nangu nga xam ne dinañ man di takkante di def lépp te kenn du ci man dara loolu nag àpp bi soreetut ndax diggante 2016 lañ ci dox ay jéego jàpp 2026 bëgg nañ fépp foo xam ne daanañ leen fa aaye wala di leen xatal ñu yaatal leen foofee te mooy askan woo xam ne du am discrimination mooy di su boddi kenn ci gàttal te xam ngeen ne loolu buñ ko waxee ndax dañoo indiwaat yeneen luwaa yoo xam ne ci 2016 jooju li ñuy tuddee niveau droit maanaam àq ak yelleef yoo xam ne yu bees lay doon yu yees ndax Sénégal dafa amoon kenn ku fi dëkkoon koo xam ne joxuñu ko àqam ba mu bëgg a wax li mu war a wax wala mu def li mu war a def loolu amut woon kon buñ indeewaatee yeneen àq ak yeneen yelleef yu yees kon day mel ni am na lu tax ñu indi àq yooyu ak yelleef yu yees yooyu kon Sénégal mësta am ku ñu boddi kon bu buñ indee loolu mooy dañoo jubloo wax ne góor jigéen ñi nga xam ne dañ leen a boddi woon ñu yaatal leen ndax wàllu góor jigéen muy homosexualité moom feebar lañ ko ci feebar yi lañ ko dugaloon gannaaw bi lañ ko ci génn ndax nit ko am xel wërta mën a def lu mel noonu waaye ba ci 2017 ñu génne code de la presse nga xam ne amul benn journaliste boo xam ne sañ naa yëkkati kàddoom wala muy junju jëme ko ci góor jigéen ñi moo xam ci wax la moo xam ci junj lay doon ba tey it orientation de sexuelle ñu indiwaat ko ci 2017 ba tey gisoon ngeen fi bu yàggut coow li fa amoon ci école yi muy éducation de sexuelle yii yëpp nag ay mbir la yoo xam ne yenn yi sax biñ koy wotee am na député yoo xam ne yëguñu ko ndax élection législative la la tombeeloon yenn yi biñ koy woote waxuma la askan wi waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci état bi sax yëguñu ko ndax booba ñi ngi ci xalaat bu ma wàccee ak buñ ma falut buñ ma wàññee kan laa war a àndal ci diggante boobu lañ ko dugal nga xam ne bari na ñoo xam ne sax yëguñu ko te ñoom ñoo waroon a wote loi boobu ñi nga xam ne ñoo nekk ensemble néewaluñ fa ndax ensemble di parti rek lañ ko mën a tuddee du national kon bu loolu xësee am nga xam ne bari na luwaa yoo xam ne buñ koy wat dañ koy woote ci turu réew mi turu Sénégal turu Sénégal lañ koy woote te turu ñiñ koy woote ñoom yëguñu ko sax ñoom yëguñu ko kon loolu day nekk problème bu rëy rëy boo xam ne euh, mat naa bàyyi xel ginnaaw bi ñu indi li ñu tudde ministre de l'ensemble te genre mooy loo xam ne man na nekk lu ne mën na bañ a nekk góor mën na bañ a nekk jigéen mën na bañ a nekk dara mooy loo xam ne existé wut mooy nekkut yooyot ngir bañ a guddal mënoon nañ cee gën a yaatal ak jubluwaay bi nga xam ne am na ci ci jubluwaay bu ñaaw kon ba ci permis de conduire yi moom lañ ci bind lañ daa def di bind kii góor la kii jigéen la loola bindatuñ ko sans rek la bind kon loola ba tey njàngan mu yaatu yaat la ci ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wet googu lii gën a ne góor jigéen am na fi doole mooy euh, bi ñu jógee 2018 2019 la Sénégal njëkk a feetu feetu góor jigéen maanaam bis bi góor jigéen yi di feetu ci àdduna bi ñu ànd ko ak ñoom def ko ci Colobane télé bi gën a mag ci Sénégal di RTS moo ko jàllale ku koy joxit moo la ko jox ci 2019 jooju artiste bi nga xam ne moo ko doon anime dëkk fii ci senegal sol tiset boo xam ne drapeau LGBT muy góor jigéen yi moom moom la ca sol muy six couleurs yi loolu yaakaar naa 2019 ñëpp teg nañ seen bët te bañ noppee góor jigéen yi nekk senegal félicité nañ ko yi nekk ci monde beet ba tey àdduna bi ba ñu xëyee ci suba sa félicité nañ ko ne ko li nga ci mën a dégg ci ay saagaak li nga ci dégg ci di la wax wax ju ñaaw lépp fexe nga ba feetul ñu ànd ak ñun suñ feet googu te loolu Télé senegal bi gën a mag moo ko jàllale ñu defe ko foo xam ne soriwut pale te it ñëpp yëgandoo ko kon lii bu amee day mel ni am nañ fi doole te dëgër nañ fi ndax dem nañ bay feetu feet gi nga xam ne mooy feetu góor jigéen yi te xam ngeen ne 2019 wax naa ne jàpp 2013 recommandation yi nga xam ne moom lañ joxoon Sénégal 188 la woon te 2000 2019 28 lañ ko jox 28 188 muy def ba mu des 28 kon yii yépp dañuy wan ne góor jigéen moom lu dëgër la fii kon li ma jubloo wax rek li ab tënk la rek ndax mënoon naa gën a yaatu waaye li ma jubloo wax mooy junju ñu xam ne kon ñoom yàgg nañ cee dox ay jéego néeguñu ba tey rek ñu di ci dox ay jéego te am nañ yéene feeg 2026 ñu daganal ko fi nim daganale nim dagane ci yeneen réew yépp loolu nag li ma ci jubla wax mooy ñëpp war nañoo jóg rawat na ñi nga xam ne ñoom lañu ñu tudd ay kilifa pétition bi nga xam ne moom lañ def nga xam ne moom lañ war a déposé xalifa seen roo yépp signé nañ ci wër nañ 45 département yépp ngir kenn ku nekk ñu xamal la li nga xam ne moo jëm si ci biir senegal ci réew moo xam ne réewum jullit la nga xam ne daanaka bu weesoo ji jullit ñi ñi fi nekkaat nga xam ne yeneen diine lañ yor sax ñoom ñoo gën a bañ ngóor jigéen kon ana lan mooy problème bi mooy bañ nañ koo xam ne moo leen di xoj ba liñ bëgg ci seen wàllu koom-koom duñ ca jot loolu mooy ci gàttal mooy tubaab bi daal lañ jox bopp ba lépp lu mu bëgg xoolatuñ ndax maanaam culture réew mi la wala déet te kenn ku nekk xam ne ne ngóor jigéen baaxut ci menn réew rawatina nag réew moo xam ne réewum jullit la kon liñ jubloo wax mooy kenn ku nekk war naa am yëg-yëgum ne lu bon lu salte mi ngi ñëw ci réew mi sun boroom dafa bindu doomu aadama fii ahsani taqwim waaye nag mën naa dem ba gën a néew doole wala gën a suufe li ñu tudde bàyyi ma su ma radd naa asfala saafiliin mën naa dem ba gën a suufe ci way suufe ñi ndax kenn ku nekk gis na fi xam-xam toll ci tubaab yi fi civilisation toll ci tubaab yi waaye nag taxul ñu seexlu lii te lii ku am xel dëgg-dëgg ci li ci nekk ci ay jàngoro waaye li ci nekk ci ak xaram ci réewum jullit jaaduwut kenn di ko fi yëkkati ngir mu mën a jàll moo tax suñ boroom yedd doomu aadama ne dafa mel ni ñoom kom ak comme ay bàyyi ma in huwa illaa kal an'aam waaye mu teg ca ne bal humu adal wala ñoom sax ñoo gën a sànku maanaam ñoom ñoo yées bàyyi ma yi xañ na bàyyi ma sax leen tane muy musiba moo xam ne nag réew ma nga xam ne ñoo ko njëkk a def maanaam ba leen yàllay alag naka la leen alage mooy dafa yëkkati dëkk ba ba ca kaw ba ca kaw mu wàcce ko ci seen kaw waaye mu taw leen ay doj maanaam sànni ay xeer ci seen kaw kon lii jaadu na ñëpp xam ko ngir naqarru ko ndax li nga man mooy li nga mën a dindee ci sa loxo nga dindee ko ci sa loxo man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastatix fa bi lisaani wa in lam yastatix fa bi qalbi wa dalika adaful iman ku gis lu la naqari dindee ko lu ñu sib ci lislaam na nga ko dindee ci sa loxo boo ko mënee boo ko mënut ci sa làmmiñ boo ko mënut nag nga dindee ko naqarlu ko ci sa xol loolu nag mooy ngëm yàlla gi gën a doyadi mooy ngëm yàlla gi gën a néew te loolu ñu wax nga xam ne moom la yàlla mbugale woon nitu yonente yàlla lóot noonu mu leen mbugale woon buñ yaakaar ne mënta dem ba yàlla mbugale ñu ko ndax wa ma hiya min alzalimina bi baid loola mu leen defoon ñoom alag leen ci alag bu mittee mittee mitti nee na loola soriwut way tooñ yi képp koo xam ne dangaa defaat lu méngoog loole pour suñ boroom def la lu méngoog lam leen defoon lu yomb la te sun boroom dafa def la gënoon fa jaalna aliyaha saafilaha wa amtarna alayhim xijaaratan min sijil dafa jël la la féete woon kaw ca dëkk ba féetale ko ca suuf la féete woon kaw taw leen ay doj yoo xam ne doj yu dëgër dëgër la kon liñ jubloo wax daal mooy mbir la moo xam ne nit ñi war nañoo taxaw te xam ne du waxi kese ndax Cheikh Abdou Aziz Sy Dabakh doxoon na ci ay jéego du sax mbirum jigéen waaye code de la famille suñu Cheikh Gaynde Fatma waaye teewul dañoo nasaxal seen wax joojee kon nag ndax du bu ñeneen jugee ñoo xam ne ñoo gën a neex doole ñooñee duñ saxal seeni wax loolu nag lu mat bàyyi xel la xam ne daal euh, réew mi dem na ba àgg ci ci baat ci joxe baatam maanaam bu doon doxa xuus na ba àgg ci baat kon li ko jaaxal mooy askan wi askan woowu ko jaaxal nag waruñoo maye dara mooy war nañoo taxaw naqarlu ko taxaw ne du fi amee document yooyu nga xam ne moom lañ def ba war koo déposé ñëpp àndandoo ci rawatina kilifa yi diine yi ànd nañ ci ak ñi nga xam ne koy saytu def nañ seen i signature xalifa général de Mouride xalifa général Tidiane mbooleem xulafaa yi ànd nañ ci 45 département yëpp wër nañ ko ba mu daj ngir naqarlu loole ak wax état ne na ko teg ci na ko teg ci suuf ndax dëppoowut ak suñ culture te ay jullit lañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lim ñu jàngal wuute na lool ak loolee. kon ñu ngi koy naqarlu di ñaan sun borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo am kàttan yàlla bu loolu am ci réew mi xam naa ab tënk la doon doon rek ci minute yu néew ngir junju ñu mën a xam ne mbir la moo xam ne lu grave la warta nekk lu ñu coow coow yu ndaw yi waaye ñi nga xam ne am nañ kàddu di ay kilifa war nañoo jóg taxaw ba loolu du am mukk ci réew mi ndax amul kenn koo xam ne boo dajee ak sa borom da amul amulay ndax lii dañ koo signé ci sunu tur dañ koo signé ci sunu tur turu réewu Sénégal ne Sénégal nangu nañ lii te wax dëgg yàlla réewum jullit rawatina ak réew moo xam ne ñi fi nekk ñi ci ëpp am nañ diine bu doon téeméer benn ba moo gëmul dara benn ba moo gëmul dara kon nit nag lu muy woote ci ku la fal koo xam ne da ko koo mu fal la li nga xam ne moom la bëgg diineem bëgg ko ca loola nga leen war a jàppale ci seen pas-pas waaye waroo leen a jàppale ci loo xam ne wuute na ak seen pas-pas ñi ngi taxalu foofu beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.